asalaamaaleykum monsieur internet solution euh, TV ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di am mbégte comme ni ñu koy defee à chaque fois di leen dégtal lépp loo xam ne rek moo gën a fës euh, ci wàllum euh, actualité dañ koy daal di door rek ak sortie bi nga xam ne Ousmane Sonko le premier ministre daal dina koy def waaye tamit président du parti. Pastef les patriotes les patriotes daal dina koy euh, def ndiki démb daal di koy euh, jëmale ci euh, nangu bi nga xam ne rek gouvernement français bi daal dina koy am ci six tirailleurs sénégalais yi nga xam ne daal dinañu faatu ndiki 1944 foofu noonu ca Camp fii ci Ndakaaru mu nekk nag mbirum maanaam nangu bi nga xam ne France nangu na ko nag loolu nekk benn avancée bu symbolique ci li nga xam ne rek moom mooy ci wàllum histoire moom nag France daal di dippee sax maanaam daal di jëlee mbir mi li statué ko euh, dippee leen mort pour la France li ni mel nag maanaam daal dañoo daal di faatu ngir sauver euh, la France ba tax na rek euh, boobi li mbir nag reconnaissance bi nga xam ni gouvernement gouvernement français am na ko ci six yooyu lii moom moo waral nag Ousmane Sonko daal di euh, publier ci euh, réseau maanaam page euh, réseau yi maanaam réseau sociaux yi di xam li que ne kat moom Ousmane Sonko ma ngay wane mer ba fut bi nga xam ne rek am na ko ci méthode maanaam doxalin bi nga xam ne rek gouvernement yi daal na koy am jëmale ko ci mbirum Thiaroye 44 bi li ak soldat yi nga xam xam ne nañ ci ñàkk seen bakkan moom Ousmane Sonko ma ngay sàkku gouvernement bu France rek ngir ñu xoolaat bu baax a baax li nga xam ne moom mooy seen doxalin te ñu xam ne que ne kat jamono ji nag temps bi dafa daal di Euh, soppeeku li ni mel ne Ousmane Sonko daal di xam li et que itam moom Ousmane Sonko ma ngi critiqué bu baax a baax décision bi nga xam ne autorité française yi jël nañ ko ci nangu bi nga xam ne jamono ji léegi nangu nañ euh, six euh, six soldats yi nga xam daal nañuy faatu waaye Ousmane Sonko la ko daal di rek mooy que maanaam yéex a nangu bi nga xam ne rek la France nangu na ko loolu nag daal dina koy jaaxal bu baax a baax bien vrai que ni am na ci ñenn ñoo xam ne daal dinañuy am contentement ci décision bi nga xam ni autorité française yi jël nañ ko daal di nangu Euh, que ni ñu noonu faatu kat dañoo faatu pour euh, ñi nga xam ni ñooy la France maanaam daal six soldats yooyu li en 1900 44 moom Ousmane Sonko nag loolu rek moom moo ko daal di euh, jaaxal maanaam daal yéex euh, nangu bi waaye tamit ma ngay xamle que ne ma ngay laajte ma ngay posé yow euh, question di xamle que ne ana lan moo wala lan moo motivé lan moo waral rek France daal di nangu li ni mel te tamit jamono ji nga xam ci la ko nangoo maanaam jamono ji nga xam ni ña ngay waajal 80e anniversaire bu événement Thiaroye 44 guy lii ca diggante ba nag ci la France daal di lan moo waral ak lan moo motivé la France. ci euh, décision bu rapide bi nga xam ne rek daal dina koy euh, jël loolu nag te ca boobu jamono moom Ousmane Sonko ma ngay xamle que ni ña ngay waajal maanaam daal euh, feetu li nga xam ne maanaam ñu ngay waajal euh, feete quatre-vingtième anniversaire bu euh, Thiaroye 44 ci ñi nga xam ne ñoo faatu ña nga doon leen waajal defal leen mbir moo xam ne dafay daal di nekk ab mbir moo xam ne digne de son maanaam daal loo xam ne moom la ñu daal di yelloo ca boobule jamono ca la France daal di njëkkantu rek daal di def li ni mel moo tax daal muy laajte ana lan moo motivé ñi nga xam ne rek ñoom ñooy France moom Ousmane Sonko ba léegi ma ngay insister ci benn mbir que ne France mënatut a contrôler euh, bii li euh, situation bii lee mbir France mënatut ci dara bii li épisode tragique bi nga xam ne Sénégal euh, daal dina koy euh, dund loolu nag la Ousmane Sonko daal di xamle que ne euh, mbirum Thiaroye 44 ñi ne ñoo ci faatu nañu jàpp que ne kat ñooñu lee dinañ leen dinañ leen célébrer li nga xam ne mooy quatre-vingtième anniversaire bi na nga xam ne rek ñoom noonu lañ ko daal di mérito moom Ousmane Sonko moom moo ko daal di xamle que nañ def benn geste boo xam ne geste digne de son nom lay daal di moom nag Ousmane Sonko waxul en tant que premier ministre waaye en tant que président du parti Pastef la doon. doon waxee ba léegi keneen ki nga xam ne aussi daal dinay génn attaqué Ousmane Sonko ginnaaw sortem boobu li euh, muy euh, Bougane Gueye euh, Dany jamono ji nag moom la ñu daal di nemmeeku à chaque fois bu Ousmane Sonko wala le président Bassirou defee ab sortie wala mu def ab publication dañ koy gis rek moom Bougane mooy daal di génn rek di leen attaqué jamono ji nag la mu attaqué rek mooy Ousmane Sonko la nga xam ne yëkkati na ko que ni la mu waral France nangu bi nga xam ne wala reconnaissance bi nga xam ne jamono ji indi na ko eh, ci ñi nga xam ne ñoom ñooy tirailleurs africains yi te mu yéex koo def lool loolul ak lan moo ko waral Ousmane Sonko ci loolu la daal di àddu waaye nag moom Bougane Gueye Dany ñëw na daal di dal bu baax a baax ci kaw ki nga xam ne rek moom mooy Ousmane eh, Sonko ndax moom Bougane eh, ma ngay xamle que ne Ousmane Sonko jamono ji nii am na loo xam ne moom la war a gën a mën a lijjanti maanaam lijjanti la nga xam ne jamono ji réew mu Sénégal mi ngi koy daal di dund waaye tamit lijjanti accord bi nga xam ni siñe na ko ak président bi fi nekkoon muy. Macky Sall ak moom Ousmane Sonko mi lee loolu nag euh, ci la daal ji a euh, mën a ñëw àddu moom Bougane Gueye Dany ma ngay continuer ci ay euh, kàddoom di xamle que ni Caaroy 44 waaw waaye nag nañu jéem a leeral bu baax a baax 86 moor yi nga xam ne am nañ ko ci diggante 2021 jàpp 2024 euh, waaye tamit lijjanti waale itamit wala nañu wax dëgg ci protocole bi am ci diggante Macky Sall ak Ousmane Sonko ne Ousmane Sonko nag dafa trahir ñi nga xam ne rek ñoom ñooy ay euh, mbokk africain am li ni mel nag la Bougane Gueye Dany daal di xamle waaye tamit daal di continuer euh, di xamle que ne jamono ji Ousmane Sonko mën a tuuta ndax ñi nga xam ne rek ñoom ñooy suñu frère africain yi mënatut a nax euh, kenn waaye tamit ci euh, doxalin yi nga xam ne rek jamono ji euh, mi ngi koy doxali et tamit poste yi nga xam ni mi ngi koy def mën naa ne daal dootul euh, gañeeti euh, li nga xam ne rek moom mooy maanaam mbir yi nga xam ne moom mi ngi koy def euh, ndax xam ne dootul gañeeti confiance yu ñi nga xam ne rek ñoom ñooy la jeunesse sénégalaise waaye tamit dootul gañeeti ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci réewum africain yi ndax jamono ji dañ koo conjugué au passé maanaam daal Ousmane Sonko yi muy def nii naan day dóor ci kaw la France ngir am li nga xam ne moom mooy confiance ndaw ñi ak confiance ñi nga xam ne ñooy suñu mbokk africain yi nañ jàpp ne ne li def ni yëpp tamit day tax tamit euh, ñooñu tamit amatuñu confiance yi moom te dañ ko conjugué au passé li ni mel euh, Bougane Gueye Dany moom moo ko daal di xamle et que moom itamit jamono ji ma ngay ne que ni Ousmane Sonko mën naan daal bu bu ga bu Diomaye le président Diomaye awee ni mu Ousmane Sonko nële lay daal di awi ndax gis nañ ki nga xam ne moom mooy le président euh, Diomaye demoon na foofu noonu ca France te Ousmane Sonko moom miiree accueillir na ki nga xam ne moom mooy Jean-Luc euh, Mélenchon mi nga xam ni avocat LGBT la moom Bougane Gueye Dany moom moo ko daal di qualifié euh, non nulé que ni pourtant jéem na maanaam mi ngi doon toog ak moom di waxtaan ak moom te kooku li moom mooy avocat ñi nga xam ne ñoom ñooy LGBT maanaam daal ca gàttal. mu bëgg a xamle rek mooy que Ousmane Sonko li muy def mënatut a euh, convaincre euh, kenn ba tax na moom Bougane ba léegi rek ma ngay ñëwaat ci mbir Ousmane Sonko ak li nga xam ne rek moom mooy mbirum euh, Thiaroye 44 nee na ko nag nga leeral askanu Sénégal euh, ci loi d'amnistie maanaam deal bi nga xam ne moom moo ci daal di nekk entre moom ak yi nga xam ne rek moom mooy Macky Sall et que tamit bu mu fàtte mukk ka ne 86 euh, ay xale ay ndaw dañoo daal di faatu ci moom pour mu dem foofu noonu ca pale li ni mel tamit Bougane Gueye Dany moom moo ko daal di xamle et que ay mbir yu bëri yoo xam ne daal am xam xamle na ko di dal ci kaw ki nga xam ne moom mooy le président Diomaye ak ki nga xam ne rek moom mooy Ousmane Sonko Sonko comme d'habitude rek li ni mel na ñuy daal di gis muy opposé wu di jëmale ko Euh, ci ñoom ginnaaw ba njëkkatee kàddu jëmale ko ci mbirum euh, caaroy 44 euh, boobilee keneen ki nga xam ne aussi daal da yëkkati ay kàddu muy Thierno Alassane Sall moom itamit nekkoon candidat ci élection présidentielle yi nga xam ne ci la ñu daal di génn moom nag daal dinay xamle ci page Facebook moom leader du parti République des valeurs daal dinay appuyer bu baax a baax a baax ci yenn ci fee yi nga xam day am ca zobu pour maanaam indi li nga xam ni rek moom mooy raisonnement ba tax na nga xam ne moom mooy Thierno Alassane Sall ma ngay xamle que ni Ousmane Sonko ak le président euh, Diomaye Faye dañoo daal di promettroon que ni ab rupture dafay daal di am jëmale ci li nga xam ne moom mooy euh, la France et jamono ji gis nañ ni moom le président Bassirou Diomaye fay dem na deux fois. foofu noonu euh, ca France en trois mois donc dem na fa li nga xam ne moom mooy la France euh, deux fois waaye tamit euh, ci événement folklorique folklorique yi nga xam ne ñu ngi ko fi maanaam ñu ngi ko fay gis maanaam événement yoo xam ne amul benn njariñ moo waral mu daal di dem foofu de ca France li ni nag la ki nga xam ne rek moom mooy Thierno Alassane Sall daal di xam et que mi nga xamle que ni ci wàllu zoo maanaam nekk ab sport boo xam ni moom la président Bassirou Diomaye Faye sax doon na ko fa addu ci bi nga xam ne dañ ko fay euh, nemmeeku waaye nag moom Thierno Alassane sal mi nga xam le que ni boobu la xeetu sport dañ ci gis benn arrogance boo xam ne euh, dañ koy nemmeeku maanaam Occident bi ni muy imposer li nga xam ne moom mooy boppam maanaam daal euh, fa mu xool fa la ñëpp war a xool mu nekk ab mbir moo xam ne euh, moom Thierno Alassane gis na ni que ne boobu li sport nekk na loo xam ne daal lu folklorique dong la waaye tamit nee na ñu daal di exclure daal tegee na li nga xam ne moom mooy la Russie ndax guerre bi nga xam ne am na ko ak Ukraine waaye daal di indi wala accueillir ki nga xam ne moom mooy Israël euh, ci moom ñu daal di koy soupçonné ci wàllum génocide ak ci procureur de la CPI moom moo ko daal di euh, soupçonné euh, loolu de ñu condamné ko nag ca CIG li ni mel nag la ki nga xam ne mooy Thional Sansal daal di xam li et que tamit mu tere ñi ñenn ci ñi nga xam ne ay athlète leen athlète lañ ngir ñu sol wàllum ijab ak bañ bi nga xam ne bañ nañ ko suñu euh, religion lépp rek ñoom ñu daal di koy euh, def mais nag gis nañ ne que ni ab incohérence moom moo daal di am euh, ca boobu lee mbir maanaam daal ci gàttal moom Thierno Alassane Sall ma ngay dal bu baax a ki nga xam ne rek moom mooy le président Bassirou Diomaye Faye ca dem bi nga xam ne dem na ko ci la France ak dem mujj bi nga xam ne dem na ko foofile moo tax mu daal di yëkkati yile kàddu feneen fi nga xam ne rek dinañ fa daal di dem xam naa ne fii la ñuy daal di jeexale muy Cheikh Bass maanaam daal Cheikh Bass Abdou Abdou moom nag Serigne Bassirou mbake Abdou Khadr moom nag daal dina yëkkati ay kàddu waaye tamit di leeral bu baax a baax a baax jëm ca euh, rumeur kàddu yi nga xam ne rek ñoo ngi koy wax mu jëm foofu noonu ca Touba moom nag porte parole bu Serigne Mountakha Mbacké daal dinay euh, assuré ñi nga xam ne rek ñoom ñooy euh, murit yi maanaam daal taalibe yi que ne moom Touba mësuta mësuta xaar dara ci ki nga xam ne rek moom mooy état du Sénégal waaye nag ñoom su njëkkatee seen koppar eh, def ci Touba ñoom dañ koy daal di jël waaye nag mësuñ leen a xaar ci dara maanaam dañuy nekk ci mbir eh, ñoom ñu daal di ci ñëw eh, fekk si mu nekk kàddu yoo xam ne yëkkati na ko li waral kàddu yi nag moom dem na sa ba fàttali rumeur bi nga xam ne rek amoon na ca jamonoy Serigne Sidi Mokhtar Mbacké nekkoon xalifa général ba tax na rek rumeur yi nga xam ne amoon na mooy que dañoo jébbal moom Serigne bi ambulance boo xam ne xaalis la daal dong la amul woon ca jamono yooyu li moo waral nag jamono ji muy daal di taxawaat di xam li waaye tamit àdduna ci mbirum inondation yi nga xam ne moom foofu noonu ca bërëb bu sell ba di Touba nee na nag ñi nga xam ñoom ñoo fi nekk 4 euh, mois rek lañ fi daal di def wala 3 mois euh, jëm 4 mois ñooñu nag mën nañoo régler jamono ji li nga xam ne mooy problème inondation yi bien vrai que ne euh, maître Abdoulaye Wade ba mu fi nekkee am en 2012 def na ci ay jéego ab maître ki nga xam ne moom mooy Macky Sall itam fi ñëwee def na fi ay jéego waaye nag ñi nga xam ñoom ñoo fi nekk nañ leen may temps ndax 4 mois dong mënuñoo régler li nga xam mooy inondation boom am foofu noonu ci Touba waaye nag nañ ci def ay jéego ngir loolu li mën a saafara mu nekk ay kàddu yi nga xam ni euh, sëriñ Bass Abdou Khadre daal dina koy euh, yëkkati fii la ñu daal di wàcce wee suñu ay kàddu di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox xaadik daje ndik ci kanam tuuti yeneen information waaye nag bu leen fàtte à chaque fois rek di abonné ngir ngeen mën a am information yu wóor te